salaamaaleykum mbokki internet yu Senegal TV suñu partenaire madame Thioye Kër Diegji moo di may seen émission nekkinu jigéen. bilaay teraanga doomu dafa am importance ndax mhm. déjà moom mooy signe de respect boo xamante ne euh, sa jëkkër du la mës euh, kii manque de respect daal du am mhm. sa jëkkër. Mhm. ndax ndax loolu da lay topp. daf lay topp waaw loolu laa bëggoon wax si euh, jëkkër da lay jox respect. waaye tamit jàppal na sa famille jëkkër itam dañ lay jox respect te itam way la boo xamante ne day law ah si say doom si say sët. day law wax la boo xamante ne boo ko amee boo ko amul yëpp moom mag ñaa ngi fi ah heure boo xew xewlee ñu daal la koy wax maman ñu dellu si waat rek. ci euh, bi euh, émission bi je rappelle que yéen ngi ci biir nekkinu jigéen tey ma ànd ceeg maman ak ya alors maman tey boo gisee euh, lan moo tax xale yu jigéen yi buñ leen mayee rek ni daw dem hôtel yow lan la lay jox lan la lay lan pour yow lan la. dañ leen a ngi ca mboore ba ñu jeex. luy ngi ca mboore. maanaam dañ leen a jeexal tàkk. deseetuñu dara non man attends waxuma la. dañoo daw dem hôtel xaaral dañoo daw dem hôtel parce que dama ne la lan nga yaakaar ne dañoo daw dem ndaxte dañoo joxe seen bopp. mais nga yaakaar ne tam moderniser wu ñu rek dañoo xam ne dañoo waxante dëgg. Mm. gis nga góor. góor sax dafay choisir parce que da ngay gis góor boo xam ne day naan man sama jabar bu ma koy jël sama biir kër yaay laa koy jëlee. d'accord yaa ngi comprendre mm. mais góoru léegi sax ñoo gën a wow. mais jigéen ñi dañuy am kersa. mun nga am kersa dem si biir kër gi xam nga yooyu mm-hmm. nga ne nañ dem hôtel. mais bu fajaree nga indi sa jabar. mais du tere yow ku góor ki yaa koy imposer mais ku jigéen ki warul nekk di la imposer. les la nga xam si lune de vraiment. mais li mu doon yéene dëgg la mais aada yow wax nga ko sànq aada ak cosaan mi ngi fi ba mais dañuy mais adduna day dox. day ah? dox mi ngi noonu Sénégal lañ nekk adduna day leen yàq dox googu nag moo waral nit ñi di dox di yàq seen ndaw yi. mais mais yow amoo droit wax ne comme ça heure bu amee rek. daa fekk ne yéen ñoo sàggane. mun nga bëgg benn am benn benn. tranquillité sa kër ak sa jëkkër. bañu moo ko de. mais nit boo ko yóbbu lim de meer mm. bàyyi ba semaine pas semaine bi jeex mm. ba nga jébbalee sa jabar ak yëpp li war ci moom yëpp nga def ko ba pare da ngaa bëgg ñu toog ci biir kër ga comme naka non non mën nga koo yóbbu mm. mais bu fajar jotee na ko indi ndax wàll la si euh, bàjjen bi wàll la ci euh, ki nga xamante ne mooy waajuram bu jigéen ak bu góor yëpp ndax dañ ci am part de responsabilité parce que dafa neex torop sa doom bu jigéen nekk xale bu ndaw ñu indil la ko. Mhm. sa morom mi nawle lépp xam nga boo jëlee sa jabar yóbbu ko hôtel. Mhm. di def naa ay lim de mais yooyu affaire tubaab la. non mais attends te sa yaay dina xalaat. waa koñ bi lan la ñuy waxee. gis nga léegi loolu lañ sóoraale. mais c'est pas que bu amee rek. Mm-hmm. ça veut dire que ku jigéen gi dafa joxe boppam wala dafa fasat fasat. parce que man gis naa ñoo xamante ne dañuy am kersa si seen yaay surtout góor ah dafay am kersa ci yaayam de trop. Mm-hmm. de telle sorte que moom bu amee jabar day préférer jël ko yóbbu ko hôtel. bu paree sër ba la ñuy yóbbu sa yaay. te naa ne intimidé. sër bi moo moo ëpp solo ko bees. non mais am intimidé. non man moom d'accord ma ci loolu boo ngeen paree seen une semaine moom mën ngeen a dem fu leen neex dem xàppi bégge mm-hmm. affaire yooyu def lu leen parce que la bokk ah. mm. dund bi dafa war a neex. mais ba faa nag nga yàq sa bopp wala ngay dem di def la neex ba pare. yàq sa bopp si ginnaaw ñëw naan damay dem damay dem fii damay dem faa ñu xam nañ lépp. dëgg la xam ngeen lépp gànnaar waaye xam na la. Ah, naar ba yow boo ko waxee war nañ koo mën a gëm ndax sikk nga sikk goo xamante ne man. danga maa <laughs> ëlëf fi ñu toll nii mais euh, juste pour leeral que du ko dem hôtel rek da ngaa bonoon ba pare moo tax nga dem hôtel ah am na ñoo xamante ne kersa da leen di yóbbee loolu am na ñoo xamante ni itam dañuy bëgg a bégal seen jabar bu ko defee ñu génne ko yóbbu ko ci ci ay bërëb yu yu baqane yóbbu leen bégal leen après indi nag sër ba sër bi moo am solo pour man yooyu yëpp yeneen yi des yëpp ay détails la fii la sër ba yëpp ay détails la ya. nit ki boo xamee yow daan taxaw ci buntu ba sang doomam bu góoram sang euh, ki nga xamante ne nii moo ko jigéen gi dugal ko ci biir néeg toog ci buntu ba xew mu yëg waaye léegi dañ lay yóbbu hôtel xotti ay loxo wala di rey bopp ginaar lu nekk fi xotti loxo xotti loxo ma wax la benn affaire xotti loxo xotti bopp ginaar ak tànk deret moo ci yem benn bokkul ak li nga xamante ne ci doomu aadama bi la jóge ñëw ci euh, génn ci ci wóorul de sa gëm importé euh, amal deret mais bokkul bokkul ah. du benn li nga xam ne yàlla moo moom nga ko ci moom nga ko jógee mais ak li nga xam imagine tey jii imagine tey jii yow ni nga toll nii mm-hmm. boo amoon doom bu jigéen boo xam ne yéen a tolloo. Mm-hmm. doo fa tal ay nax dinaa xam nax li ndaw la am du ndaw. non mais tant que mag ñëwul. Ah. doo ko mën a xam normal parce que léegi kenn jë amatul temps pour lijjanti ay ndaw la. tënkal ma ko rek parce que liñ ñu cëralee ci waxtu jeex. waaw xam nga mm-hmm. damay de c'était juste rek damay leeral mbokk internet du Sénégal TV. ah ñoom. dañuy dañuy dañuy am euh, doom ñi nga xamante ni dañuy toll ñoom du ñu am temps bi nga xamante ne ni sax dañ koy xool affaire yooyu lu dul gis nañ ni xonk na rek. Mm. xaaral ma yuuxu saalal ni ko sama dooma li mm. sama dooma la. Mm-hmm. mais nag yar fu mu nekkoon démb ba tey defe naa maman mi ngi fa. Mm-hmm. xanaa balaa ngay jox euh, roqe euh, kàddu nga tàggoo waale rek ndax mm-hmm. émission bi jeex na li ñu tëral ci waxtu moom it jeex na alors tàggool mm, mbokk internet bi Sénégal TV. waaw balaa may tàggoo nag Adja dama lay wax ne thème bi am na solo torop may wax képp kuy jigéen na nga wodduwaat sa sër bu baax te xam ne jigéen warul fonk leneen lu dul ndawam mm. ah man de sama lii moo ma gënal lu ma mënti am jamono ji mm. ba tax na damay tàgg mbokk internet yu Sénégal TV mais ah damay nuyu nag ki nga xamante ne moo di madame Thioy bu baax a baax mm. moom nga xamante ne moo signé ñun partenaire ah mu nekk ku baax ku ku ñàkk ki ñaan gis ngeen ba ma defee ak moom émission mi réccu ko benn yoon ba tax na dañ leen di jox di daje ba beneen yoon incha allah ci yeneen moment yi ñëw nee naa leen gëj ngeen ma gis si nekk nu jigéen. Mm-hmm. mais ñëw naa bee passé def buzz. Mm-hmm. bi yoon nag xola dañuy ñëw def boom. Mm-hmm. ndax dañoo nekk ci ay affaire te dañoo am ay ruq-ruqaat yu ñu war a dugg. te jeexagul Sénégal TV ay ruq-ruqaat dong la. déggoo ma kañ ngay mesurer te ba ma ma eggali sama émission. eggali sa yëf sa wax quoi man looloo ma métti ci yow. oui ma may ah. dégg sa caméraman bu baax a baax sonn na nag. waaw kontaan na ci yow moom itam ah. kon ñu ngi koy gërëm moom itam euh, Moussa waaye balaa dem ci moom damay wax Rokhaya yow looy tàggatoo waa Adja dernier mot solution ban ngay conseil plutôt conseil mm-hmm. sa émission moom am na importance trop mm-hmm. te aussi maa ngi maa ngi conseil xale yi jigéen ñi gëm leen seen bopp mm-hmm. gëm leen seen bopp te ngeen fonk ngeen ngeen gëm ne virginité am na am na waa ndax loolu vraiment loolu mooy bu ñu waxee jigéen rek loolu lañ ciy teg waaw loolu lañ ciy teg waaw am solo waaw maa ngi am mbégte contentement rek waaw waa euh, ñun itam ñu am mbégte ak contentement àndoon ak yow ci euh, bile plateau waaye yéen ñaa ñëpp laay wax sax ndax nag def ngeen li ñu leen fi doon xaaree joxe ngeen seen avis comme ni ñu ko doon xaaree ci yéen euh, leneen lu may wax rek moom mooy que ni jigéen bu nekk jigéen nga te itam yar fa mu nekkoon démb ba tey ma nga fa kon nag delloo si waat leen yar bi nekkaat leen jigéen ñi ngeen nekkoon ñi seen yaay nekkoon yi seen maam yi nekkoon ngeen xam ne góor ñi dañ leen di nax ki jox ma sa bopp après man maa lay takk kooku da lay nax bu ko tollee noonu na dem joxe xaalis bu ma takku la takk la jël la nga doon jabaram ah ñu doog xam ne nag li muy wax dëgg la kon mbokk yi lii lañ leen indiloon tey ci nekk ni jigéen nee naa leen madame Thioye du ma ko fàtte benn yoon ndax boo émission bi amee tey c'est grâce à moom moo ci euh, daal di jàpp mooy partenaire bi saa su ne ñuy ànd ak moom waaye duma fàtte mussa ah, moom moo nekkoon ci caméraman bi moo nekkoon ci caméra bi ma koy jaajëfal bu baax a baax di kontaan bu baax ci euh, toute l'équipe de Sénégal TV jaajëfal naa leen internet yi beneen yoon